mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jeetu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. mbokk yi beneen xeexaw ci actualité la semaine soxal na coow jub na ci musée bu ñu bëgg a def Touba jóge ci benn woykat doomu sénégalais nekk ci États-Unis ñu koy wax Akon Akon yàgguñu ko fay dégg ak cité Akon City ci benn dëkk file ci boori Mbour euh, ma jàpp ne jot nañu tamit ñu saytuwaat sunu réew mi xaalis mi ngi ñuy bëgg a fëkk mi ngi ñuy bëgg a yóbbu wante am naa yàqin ne lam mu bëgg a def Touba day gëwma ñu nangu mu am fa ndax bu dee engagement rek collectif dëggu Pastef amuk tarbiyatu ak bëgg def jëfe ndigal yaakaar naa ne lu murit Touba duñ nangu benn nit soqe ko fële xamuñ xaalis bi fu mu jóge xamuñ xaalis faramason la xamuñ xaalisu lobby la xamuñ bañ xaalis la ñu leen koy defal bu dee bibliothèque fu ñuy denc mbiri sëñ Touba yi rek boo nee naa naadam naadam naadam ba àgg ca kër gu mag ca njaareem gis ne barab ba macha allah sell na te boo gisee jumtuwaay yenn ci sang bu tedd baa nga fa boo demee Touba sëñ Abdou Ahad Mbacké yal na yàlla yokki leeram te taas ñu ci barkeem barab ba mu fa defam ko macha allah ñuy wax daaree kaamil université Cheikh Amadou Bamba ba ca Touba macha allah ngir tarbiyu xale yi ngir bañ dara fëkk leen ci taxaw Serigne Mountakha yal na fi yàgg te nga xam ne taalibe yi rek ñoo ko def taalibe yi nag ñoom bu ñu seetaan loolu balaa mu ko faa indi nañ ko defal seen bopp wala bala mu ko faa indi tamit nañ ko saytu ba xam ci lan loo ko tax a jug buñ topp modernisation bi moderne bi ba xaalis këf ñu changer suñu ay jumtuwaay ak suñu doxalin donte il est temps le monde évolue mais gis nga nag le monde évolue boobu dinañu fëkk ba yóbbu suñu xel évoluer suñu xel nag ci yeneen science te yàlla bu mu am Touba nag am nañ fulla am nañ fayda benn euh, sang ba yàlla fi yàgg te wér mun Muntaxa mooy jox kàddu sëñ Bass Mbàkke yàlla fi yàgg te wér Abdou Xaadir jottali yaakaar naa ne bu dee taalibe tamit am nga yéene def fa dara daañ ko saytu ba xam ne lii lu mat a def la ñu def ko waaye nag nañ ci teey daal li may wax rek nañu teey dal ci lu lu bëri ndax yàkkamte ak gaatu waxtu wuñ juree doom rek réccu lay tudd te foofee ku nekk xam ne Tuubaa borom ñàkk na ko aar ko aar boo xamante ni bañ koy liggéey ba taxaw Sëñ Fallu Mbàkke Sëñ Mudu Musaa Sëñ Fallu ba jamono ji amul lenn loo xam ne dañ nangu nit def fa lu fa kilifa yooyu defutoon te yaakaar naa ne sang bu tedd bi Sëriñ Muntaxa il est tellement vigilant ci lu nu mel ñu ko fiy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér